barke borom Daaru Salaam ñu ngi lay soxna soxna maam Jaara ñu ngi leen di siyaare bu baax te di leen dalal ci jàmm mm, di am mbégte bu baax a baax ci seen teewaay fii ñu ciy kontaan lool kontaanu morit di ak yokk ci ñun itam nag ndax ay morit lépp lu ñuy def seen bu ca soxna jaare ñëwee rek xelam day dal kon am nañ mbégte bu baax ci teewaay bi bégit nañ ci ni ngeen ñëwee ndax yéen fi ne nii lépp loo xam bëgg nañ mu siiw yéen a ko mën a siiwal te mbirum sëñ Touba mii moom da ko war a siiwal rawatina muy liggéey boo xam ne dañ ñu koy liggéey la ñun ahlul xasida kon mu mel ni laaj bi ngay laaj dina am solo lool ci bëgg a siiwal gi daayira bi ñu ngi ko sos ci jamono yi sëñ Saliou xam naa ay deux mille deux mille ay ay ay deux mille quatre yooyu daal jëm deux mille trois ci euh, jàpp deux mille trois ci lañ ko sos waaye boobaa doxin wi daa amoon nuñ ci daan doxe mooy booba dañ daan nekk ci suñuy kër di ko doxal su màggal Tuubaa ñëwee ñuy joxe ay lim di ko jàng waaye booba amagutu tur doonagut mbooloo moo xam ne am na tur lé bi yàlla dogalee nag bi ñu demee ba nga xam ne dem nañ ba àgg ci 2007 waaye boobu sëñ Saliou ngi fi ñu waxtaan ci ngir wutal ko mu nekk ab daayira ak yaatal ko yàlla dogal ñu waxtaan ci ku ñuy wax Cheikh Abdourahmane Niang ak ku ñuy wax sëñ Alsaan Kan ñu waxtaan ci ñu nañ ko yaatal ñu ni léegi fii de ñin fi gën a xam ci kilifa gun ci man a tàggu mooy sëñ Murtalaam sëñ Fàllu ñu dem ca bi demee waxtaan ceeg moom mu daal di ne waaw loolu de moom man ànd naa ci sëñ Alsaani ko kon def na la ngay njiit li sëñ Murtala ni ko nangu naa ko kon maay njiitu daayira bi waaye yow jël naa la fu ma fi nekkul nga nekkal ñu fa moom it tey jii moo war a ñëw muy Alsaan kan ñu koy siyaare bu baax sëriña moo ko am fu mu ko yónni mu ni ak taalibeem buy takk soxna mu yónni ko ngir mu ñaanali ko ko moo tax ñëw xaj na balaa ñoo tax sax mën ñëw foofu la tàmbalee bi demee ba ñu tàmbali ko nag ñu ni kon nañ ko yaatal niñ ko mën a yaatal nag mooy ñu koy woote àjjuma ju nekk ñu koy woote ci kër di ko yendu kër kenn ndax bu njëkkoon màggal gi rek lan daan def ay lim ak léeg-léeg guddi gi mel ni comme alxames ji ñu fi dem ci kër kenn fanaani fa durus bu bët set waaye booba ay benn benn ñoo ko fanaan def waaye nag loolee ci lañ doxee di ko yaatal biñ koy yaataleet ba àgg 2007 ñu xalaat ni kat lii war nañ koo yóbbu ci sëñ bi muy sëñ ngir mu wutal nu tur yàlla dogal bi ñu nekkee noonu ci wàccaay woowu sëñ Saliou ci la wàccub liggéey waaye wàcc gaat an ci am tawféex ndax yàlla dogal na ajjuma jooju mu wàccee daa fekk ñu ay daayira keroog ñun ñun danoo yendoo jàng durus fii ñuy wax kër Mbàkke Sàmm booba booba ki ko aayoon fi la dëkk ndeke booba sëñ bi wàcc na bi sëñ bi wàccee nag ñu continué wax di dox noonu def ñaan ba alaaji baara toog ñu dem ci alaaji baara jébbal ko ko ak suñu àddiya alaaji baara booba moo ko tudde ahlul xasida yaakaar naa nit ahlu xasida moom néew na daayira buñ ko ko tuddee man de moom laa ci xam boo xam ni ki fi nekk sëñ Tuubaa moo ko tuddee am na ay yoo xam ne ñoom ñoo ko tuddee waaye daayira ahlu xasida buñ tuddee boo xam ni ki fi nekk sëñ Tuubaa ko tuddee moom ci daayira ahlu ko gis ba mu noonu daal mooy njaalbeen ngi yaakaar naa booba bi muy amutu daal ci ay mil 2008 la tàmbali ñu commencé nag di ko doxal di ko doxal taxul way ñu wutal ko bisu xasida nag ñu koy doxal ba xam naa àgg ci ay ay ay deux mille deux mille deux mille dix yooyu ndax euh, waaw deux mille dix ñu ne kon war nañ koo wutal bisub boo xam ne nag kat war nañ ñoo dajee ngir sant ci nag sëriñ bi ndax buñ xoolee ci màggal gii kat nga xam ni sëñ Tuubaa moom da cee wooteeg cant guñ ko santee borom ndax lu mu ko defal kon ñu nan ko nan ci wooteeg cant goo xam ni dañ koy defal sëñ Tuubaa ndax lu ko suñ borom defal ba mu koy sant suñ sëñ Tuubaa defal nañ ko ci lañ ko tàmbalee di ko def di ko woote bi su xëy bi ñu ko njëkk a def ko def ko def kër sëñ Murtalaam sëñ Fàllu ñu dajee fa leen am ci suñu wërsëg ñu def ko ay xéewal ñu yendu fa woo suñu moroom yi murit yi ñu def ko bisu xasida ba mu del siwaatee ñu tàgguwaat sëñ Murtala mu ne ah lii xajut ci kër da ngeen di seet fu yaatu ngeen def ko fa su ko fee fu ngeen ko def ma fekk leen fi leen ko tàmbalee defe fii waaye yàlla dogal na rek bi ñu ko tàmbalee année bi ñu ko njëkkee def nga xam mooy ñaare bi ko tàmbalee ànd ak sëñ am ndax année booba ca lañ dem ca moom wax ko ko mu ni bu sooyal bëgg na caa ñëw waaye yàlla dogal na sax boobu mujjut ñëw waaye yabal na fi ab ab délégation am solo mu ànd kook ñun boobaak tey nag bés bu nekk ko def ñoo koy ànd ñetti at yi jàll nag moom bu ci nekk moom mooy ñëw mooy mooy yàlla dogal na moom mooy ñëw yëwi mbooloo mi moom moom moom sëñ am sa ci guddi àjjuma gi waaye sëñ Murtala moom ci tàkkusaan gi bu defee durus bi ba mooy ñëw yëwi mbooloo mi ñu wéyal guddik àjjuma gi ba ca guddi sañ am sa ñëw yëbi mbooloo mi ci guddik àjjuma gi noonu daal lañ ko doon ci doon doxale ci li nga ci laaje kon la deen lu ci lu ci deset boo ñu ko laaje ñu leeral la ko ci wasalaamaaleykum bisimilah asalaamaaleykum ah, wa rahmatullah ah, soxna jaara ñu ngi leen di siyaara bu baax ah, di am ndek mbégte bu baax tamit ci eh, sunu jotaayu murit bi nga xam ne tey teew ngeen fi muy ngont moo xam ne dañ koy def muy ngontum xasiida mu wuutu bisu xasida bi nga xam ni dañ ko daan def ngir fi jamono toll ak ni sëriñ bi diglee ñu ñu ñu ñuy liggéeyee fi ñu toll ñu leen ci jaajëfal di leen ñaanal tamit uh, suñu borom yokk seen xéwal ba liggéey yi ngeen di liggéey ci dëkk bi ngir yaatal mbokki taalu yi liggéey yi ñuy liggéeyal suñ tuwaa suñu borom defal leen ci ndam teñ fekke ko waaw buñ bëggee tontu nag ci sa laaj boobu nga laaj muy laaj bu am solo te mooy lan mooy njariñul xasida njëriñul xasida moom yaakaar naa fu ab murit toog di ko waxtaanee mën na fa fanaan yendu fa giirug dundam mën na koo waxtaanee te njëriñ la du jeex waaye bokk na ci njariñul xasida euh, xasida mooy li nga xam ne moom mooy defar nit bokk na ci li njëriñul xasida xasida moom day defar roo xam ni tarbiya gi nga xam ni ab sëriñ daana ko tarbiya ab taalubeem ba mën a àgg ci yàlla tarbiya googu xasida da koy def ndax li tax mu koy def mooy e, gaa yi yàlla yi nga xam ne ñoo fi jiitu woon daan jaamu yàlla bay mën a àgg ci yàlla alxuraan ja nga xam ne ci lañ daan sukkandiku ak turu yàlla ya nga xam ne moom lañ daan def ak seeni nawaafil mboot ya ak secret yëpp sëriñ bi da ko boole dëxëñal nu ko ci biir xasida moo tax xasida boo ko dee jàng xeeti ibaadaat yi nga xam ne ni jaamu yàlla yi daan nañ ko def yëpp suñ boroom di ko nangu sëñ Tuubaa moom nangul nañ ko léppam te def na ko ci biir xasida yi moo tax xasida boo ko dee jàng daf lay tarbiya te it daf lay tarxiya ndax mbooleem xeeti jikko yoo xam ne ab taalu be waru koo jikkowoo boo commencé jàng xasida xasida da koy dindi ci yow te mbooleem jikko ju rafet joo xam ne ab taalube war na koo jikkowoo tamit xasida da koy def ci yow ndax xasida eh, li muy def ci yow mooy day def ci yow nga jomb nga am mbañum rus te damay wax ni toujours eh, nit ki day rus wala mu jomb rus nag lees di njëkkee waaw ndax euh, nit ki muy doomu aadama mën nga koo rus waaye boo ko gisut la nga ko doon rusee mën nga caa nekk waaye boo xasee àgg ci jomb nag loola sa digganteeg yàlla la te tawxiid jooju di nekk ci nit ki ak gëm yàlla gi ba àgg tax mu àgg ci jomb loolu xasida da koy def ci ab taalu bi moo tax xasida boo ko dee jàng te muy dëgg ci yow loo wéet wéet ak loo wéetliku wéetliku ñoo yem ci yow ndax dangay jomba def lu dëppoowut li sëriñ bi bëgg wala nga wax lu dëppoowut ak li sëriñ bi bëgg kon bokk na ci njëriñi xasida daal dana def ci nit ki ak jomb waa li mi xasida yi ñuy jàng ci jataay bu ne nag moom mëneesu koo takk mëneesul ni jataay sàngam nangam lañ fi jàng ndax euh, dañuy jàng rek buñ jàngee ba noppi xool kenn ku nekk lim ya nga jàng comme nañ ko baaxoo defee ñu dajale lim yooyu nag mën a xam ni e lim sangam lañ jàng waaye jataay bu ne lim sangam lañ fiy jàng moom duñ ko def ci misaal muy tey ñu ni jataay bi de euh, fukki wakaana axan ak juróom lañ fi soxla daal di ko fiy jàng déedéet dañuy ñëw rek toog buñ ñëwee ba keroog ñu fiy jógee dañuy durus su ko defee nag Euh, bu durusee ba noppi nag lim yooyu buñ ko dajalee ci la ñuy xamee ni lii kat moom lañ fi jàng ci xasida te noonu lañ ko daan baaxoo def tamit ci liggéeyub euh, xasida bi bu bisub xasida bi musaan di ñëw bu jàllee rek la ñuy tàmbali lim yi ndax loolu boo gisee ñu koy leeral it da ngay ñëw ci bisu xasida bi dégg ñu jël microphone bi ni euh, xasida sangam jàng nañ ci nangam xasida sangam jàng nañ ci nangam bu ko defee comme xel nga yor di xalaat nga xalaat ni waaw ñii bi ñu fi xëyeeg léegi ñaata lañu lu tax ñu man fee jàng xasida yu toll noonu loolu mënta nekk fekk la koy sabab mooy liggéey bi niñ ciy doxee mooy saa yu bis bi jàllee rek commencé wan nañ di jàngaat suñuy sase xasida sase xasida yooyu nag bu ñu demee ba bis bi ñëw moom la ñuy dajale ak li nga xam ne jàng lañ ko ci bis bi daan ni bisub xasida bi de jàng nañ ci nangami xasida yi gën a siiw ci yiñ ciy jàng bokk na ca jaalibatul maraaxib nuuru daari ni desbu mawaahibu muxaddamaat wa kaana aqan mafatihul bishri taysirul asir xasida yi nga xam ni moom la nit ñi gën a miin moom yëpp la ñuy jàng yeneen xasida tamit la ñuy jàng naka noonu tamit dinañ def ay salaatu ala nabi dinañ def ay basmala dinañ def ay sóoratul ixlaas loolu lépp dañ koy liggéey ngir lépp comme ni ko suñu Omar waxee rek dañoo jóg ngir sant suñ Tuubaa ci li mu ñu defal ndax comme moom dafa woote sant suñ cu sant suñ borom ci màggal gi ñu nit ñu woote sant suñ Tuubaa ñu nit jéem koo delloo njukkal ndax Sëriñ Tuubaa kenn mënu koo fay looloo tax ñu jël nag liggéey bi nga xam ne liggéey na ko te suñ borom nangu ko muy alxuraan a xasida ñun ñu di ko ci sant loolu daal mooy li nga xam ne euh, bis bu musaana ñëw des na ko ci waajale te it noonu lañ ko daan defee at mu nekk ba ni yàlla dogale ren ji ñëw na nga xam ne euh, ngont mi ren moo wuutu bisub xasida bi ndax fi jamono ji toll kon daal loolu lañ mën a wax ci njëriñu xasida ak ni nga xam ne noonu lañ daan liggéeye liggéey bi wax na jërëjëf jërëjëf soxna Diarra ñu ngi lay sant bu baax di sant jëw ni ñu njëkk a jël kaddu muy sëñ Omar njaay mi nga xam ne moo yor kaddu mbooloo mi ci tënk bi mu def tënk bu gàtt ci leeral doxin daayira bi xanaa xatinu jamono moo tax waaye liñ ci war a tënk lépp tënk na ko noo xam ne ku ko dégg danga mën a xam ahlu xasida mooy lan ak fan la jëm daayira la it boo xam ne boo composé ay góor ak ay jigéen ci dox ci wàllum tarbiya ci ruuxaaniya gi nga xam ne moom la xasida di ni ko njëriñ yi suñ Mamadou wax léegi moom la xasida di def ci jëmmi doomu aadama ji nga xam ne dinañ fexe ba soxna yi ñaandal àndal am ay dog wala ay salaatu an nabi wala yoo xam ne dinañ ko mën di leen ko jox ñu koy jëfandikoo ba xam dana mën a wut si ñoom góor gi nga xam ne yor na ab jukkib xasida di ko di ko jàng bu dee li ngi laaj mooy li jëm ci wàllu bis bi nga xam ne moom lañ doon taxawul daanaka lu mat du mat fukki at ren moo doon doon fukki at ak benn bu daan woote daan ko def ñaari fan àllarba lañ ko daan def ak alxames àllarba ji def ko ngont maam Cheikh Ibrahima Fall alxames ñu def ko bisu xasida bi mu demee ci guddi gi ñu dundal guddi gi àjjuma gi ànd ko si am sëtu Mbàkke am Sëriñ ren ji nag ak ni jamono tëddee ci mbas mi ñoo ngi ci ñaan tax suñu borom subhanahu wa taala barkeb alxuraanu karim yi fi jàng ak xasida yi yàlla na ci suñ tubaa sukkandiku ba jëlee ko ci àdduna bépp di ci ña di ci ñaanal suñu borom subhanahu wa taala suñu jëwriñu bopp ji fi bàyyi ko bu yàggut muy suñu aatu jaañ suñu borom dolli ko yërmaande ak ngërëm ci barkeb Cheikhul Khadim loolu it la ko waral du lenn lu dul ngir jëfandikoo ndigalal sëriñ bi nga xam ne fu mu toll mi ngi wax ne nañuy jëfandikoo ndigal yi nga xam ne docteur yi euh, ñu ngi koy joxe jamono ñu toll di moytandikoo ndaje mu bari ndax bu bu boo masaa ñëw fii ci ngontum xasida mi nga xam ne ñu ngi koy def ci àllarba rek yaakaar naa da nga fekk mbooloo mu baree bari bari mu tëkku kenn ku nekk ci dara waaye teewul murit moom laata faxalu sayan bi xayri isni ji ji suñ tubaa wax muy bu leen def denn ci lu ànd ak ndigal moo waral ñun jàpp na ne ndigal moo dàq ci lu ci ñun lu mën a doon bu fi bu fi million nit daj doon daj doon dajee te amuñ ci ndigal kenn nit taxaw fi képp yor benn xasida moo ñu ko gënal fopp te ànd ak ndigal kon loolu moo waral rek ñu defee ko ne ren nii woyefal ko ngir sàkku ci bëgg ko sëriñ bi ak daje fi jàng alxuraan xasida ngir ñaanal jëmmi Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi loolu te wér ba yéen ji nga xam ne am na ko ci liggéey Sëriñ Tuubaa mu mu mot mu ko kon soxna Jaara loolu rek xam na moo waral ren ñu ñu ñu wëriku nii amaat ci beneen gis-gis soppiku boo xamante ni moom lañ ci def te am na kilifa yu ñu siyaare barki démb rek ñu wax ne ñu ñu xamal ñu nii ngeen bëgg a def ren wala nii nga xam ne moom ngi def ren moo moo moo moo gën fopp na ngeen daan def muy ren bi sëriñ bi joxe ndigal ci yenn bis yi ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu woyefal ko ñun nañoo gis ne daan nañ def ngont maam Cheikh Ibrahima Fall def bisu xasida ñu ne ñaar yooyu buñ ci buñ ci fang benn nañ def ngont man daan defal Cheikh Ibrahima Fall nañ ko nañ ko woote waaye nañ ko wootee ci wooteeg jaayante muy képp kuy ñëw nga indaale addiye maam Cheikh Ibrahima Fall ndax Cheikh Ibrahima ku ko xam ci jëf nga xamee ku mu raw it ci yoon wi ci jëf la la rawee addi yu yi nga xam ne moom lañ daan dajale it daan ko def ci bisu xasidi bi di ci def ay berndeek yu mel noonu ay baas ak yéen ci daan aju yëpp nu mu toll danañ ko dajale bu ñu defee ngont maam Cheikh Ibrahima Fall ba xëy dem jébbal ko Cheikh Mouhamadoul Mountakha ñi ngi ñaanal sëriñ suñ mbàkki busa la yaakaar naa suñu Omar xaw ma suñu Omar busa barki moom suñu Omar busa barki dem ban fa demee di ko siyaar leer la ko liggéey rek leereeku liggéey bi dañoo wax nañu noonu ngeen bëgg a def di moo gën fopp na ngeen daan def ndax dajale addi ji nu mu toll ngeen daa jaar ci digg bi sax daanaka noose ko rek dem ñibbiwaat dajale addi yi yot fi nekkal Sëñ Tuubaa moo ko gën fopp kon loolu lañ jël ren ji ngir aj addi Sëñ Tuubaa ñu dajale ko nu mu toll euh, ñu jox ko Cheikh Mouhamadoul Mountakha jeneen taw fiixit amaat ci ndax dañ daan jébbal addi ji ñun waa daay jox ko Cheikh Mouhamadoul taxa bu noppee it suñu am satu mbàkkeem sëriñ son yi bu kenn ku ne xam na ne an mu jot day am guddig ajjuma gu muy taxawu fee ca poroxaan waaye daa fa dajale addi Sëriñ Tuubaa ju takkoo takku da ko ànd ak ahlu xasida yëpp ñu koy jébbal Sëriñ Muntaxa ren jii nag bi daayir bi gisee ne euh, Sëriñ Amsatu mi ngi ci waajtaayu ngir ñu yóbbu addi jooju ñu ne kon addi ji nga xam ne baaxoon nañ ko jox Cheikh Mouhamadul Muntaxa nañ ko far jël teg ko boole ko waa diwaanu ahlu ñu teg ko ci loxoy Sëñ Amsatu Mbàkke mu joxal ñu ko Cheikh Mamadou Muntaxa nga xam ne loolu yi ay tawféexi tawféexi suñ borom dajal na ko ci ci bis bi nga xam ne moom la ahlu xasaayid daan taxaw ak ngont mi nga xam ne moom la moom la ñu defal maam Cheikh Ibrahima Fall kon ñi sant baax tey gërëm di ñaan ko fi teew yàlla na suñu borom faj sa aju saahir ba baatinan jéggal ni suñu bàkkaar yu nu yu nu xamul barke Cheikhul Xadim yàgga fi Cheikh Mamadou Muntaxa wasalaamu aleykum wa rahmatullah